am mbégte bu baax euh, jël kàddu euh, tey euh, jëw ci suñu retard parce que ñu woon ne teeru gan yi ñu fekk ñu fii kon loolu aussi que duñ ci jéeglu di nuyu chef de village suñu papa Sewru Gueye mi nga xam ne mooy chef du village yu Ndiéfoune Parba nuyu imam nuyu notable yi nga xam ne fekk naa leen fii nuyu aussi le représentant du chef du village Papa Guèye mi nga xam ne mooy représenté chef du village au niveau de la commune di nuyu ah suñu invité yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ñu gën cee ràññee Julie Cissé ma xam ko bu baax muy femme de développement Abdou Karim ñu ngi koy nuyu moom itam buy ne femme de développement aussi ne homme de développement au niveau des commune yi sillonnent la région de Thiès ah di féliciter la présence effective des femmes ak fépp fu ñu mën a bàyyi ko ci région bi ci département bi teew fii ah muy ñoo xam ne wax nañu ne am na Fandène am na Caajaay am na feneen ak feneen kon loolu nekk na loo xam lu am solo la ànd nag ay élus municipaux yoo xam ne ñoo bëgg ànd fii pour fekkee ndaje bi fekk fi Saliou géey un élu municipal Saliou Guèye te yaakaar naa ne bés bi bu amee tey bu am réalisation bi am fi tey ginnaaw yàlla moom la Saliou géey parce que moo dégg projet bi jegante projet bi ba la nga xam ne moom la projet bi di laaj mu jëkkante def ko pour parce que olof dafa am lu mu wax séddale ca kuddu yu jëkk ya moom loolu la xam ba waxee rek dafa daw joxe kon moom mu ngi koy félicité euh, di euh, féliciter Julie Cissé, Abdou Karim Sall. Ce n'est pas la première fois nous def des actions similaires dans ma commune. Les, les actions de développement communautaire, euh, pays Dundé. Parce que la avons le programme Pays Dundé. Nous avons vu, n'est-ce pas Pays Dundé. C'est programme am est bu ñu demee programme yi yoo xam ne dafa nekk ci béy dundee aussi am na yenn programme yoo xam ne am na ci sama commune mu jëm ci éducation nationale def ci ay jéego yu am solo kon euh, bu ma déggee ne dañuy ñëw fii ma voyagé ñëw ñu ma ba tey ñu ngi fii moo tax ma taal sama oto rapidement pour ñëw sargal leen dama ne liy def fii amul coow am na foo xam ne dañ ko fay def mu am coow am werante ca fa ñu koy def ca suuf ya ndaxte dañoo nekk commune yoo xam ne dañoo bëgg suuf gëm suuf ba benn mètre sax ba fu naree def ci seen suuf rek coow am na bu ko defee maintenant que ña nga xam ñoo ko def bëgg ñuy def dañuy arrière dañuy recul parce que aussi nit ki boo koy dimbali coow am da ngay dem si yoon ñàkk fu mu am mais fii amu fi ba ñu commencé ak léegi ñëwuma fi am na foo xam ne foog ma dem fa dajale population waxtaan ak ñoom ba la nga xam ne moo la fi bëgg a def ñu def ko fa pour coow bañ a am mais fii ñëwuma fi maa ngi fi doon a ñëw tey moom commencé ak léegi kon mooy wane ne dëkk bi wenn say la. benn say parce que daan naa def politique ñu ñëw di ma ko léeb ñu def benn say def ko ci kaw table ji du ma woon ne dëkk yëpp benn say la lu ñu wax rek moo la ñëpp wax comme moo am fii kon li yelew ngeen ko te xam ne aussi di ngeen ko téye parce que li ñu fi def boo ko dul xaymay tey ci alal ay millions yu bëri la mais li ngeen joxe par rapport ak lu ñu fi def xam ngeen ne du dara loolu moo tax ma ñëw fii pour manifester sama fierté ak sama satisfaction ci projet bi am naa yaakaar ne aussi yéen waa Njeefun du ngeen ko sàggane ba du am résultat na ko waa caar fiyaay defee dem naa caar fiyaay xam la fa nekk dem naa familière bi aussi am na li ñu ma ci jox ma yóbbu ko sama kër moo xam besaab la moo xam naana la moo xam tomate la moo xam leneen mu mën tax ma xam ne programme bi bay dundee lu am solo la yéen itam dama bëgg ngeen raw waa caar fiyaay ngeen raw leen mbaa ngeen dem ñu former ngeen jóge fii dem fa ñoom ñu former leen ndax ñoo am na ñu résultat kon dama bëgg mu bañ yem fii am nañu nekk ci programme bi ñooguñ ci ñoom mais ñi ngi am yaakaar ne fii ak weer dinañ ñëw ci ñoom ñi ngi toog fii am na ñu ma ci àndal ñu ñëw fii bokk nañ ci programme bi ñi ngi xaar nag yaakaar naa loolu nag bu bëree ci sama commune ah jàpp naa ne kenn dootul génn fen di dem ci taax yi loolu lu ma xam la te loolu aussi mooy objectif bi lu tam loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg nit ñi rester rester dans les villages dans les communes toog fi liggéey fi loolu la ñu bëgg te ñi tànk bi nga xam ne moom la ñu jël bu gënee yaatu. les jeunes vont rester dans les villages, travailler à côté de leurs parents, à côté de leurs maris, de leurs femmes. baytee dem fenn loolu yaakaar naa ne ñii ñëpp toog fii taxaw fii ci dëkk bi la ñu dëkk jigéen ñi aussi ah tubaar fa kàlla otes yi ñu def yaakaar naa ne ñoom itam ah dañuy teg otes yi fële pour nag dem ci liggéey ba mën koo liggéey liggéey boo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko fi ñoo ko réalisé bu ñu am fierté am mbegte nu itam ñu aussi am mbégte mu raw moo ñu am loolu mooy li nga xam ne moom laa ne ak lu mu gàtt gàtt gàtt dinaa ñëw pour wane leen li ñu fi def te ñu ko yemale fii war ko continuer feneen feneen fi nga xam ne am na ay jafe-jafe ba tool ba war a nekk am na ñu am ay jafe-jafe mais nañ ko lijjanti ba tool ya mën a nekk foofa. La lutte contre la désertification et la sécheresse, qui annuellement est dans nos agendas le 17 juin, mais nous avons préféré, euh, de calendrier, célébrer cette journée ce dans le village de Ndiéfoul-Farba, où le cadre du des femmes à la 4 hectares pour le groupement de femmes. Et avec le partenaire Hilfofur Africa Vassefur Sénégal, nous avons pu mettre, euh, installer un puits forage, un hectare de goutte à goutte. Et comme vous avez pu l'occasion de le voir, euh, nous avons démarré le, la mise sous terre de plusieurs agrumes qui vont accompagner les, le maraîchage qui se fera par les femmes. On est à plus de 50 millions Et parallèlement, si nous estimons le coût euh, de la, des de, de personnes ressources, nous avons présenté les techniciens, mais à côté de ces techniciens pour les ouvrages, il y a les techniciens en horticulture, en pépinière et autres euh, pratiques. on est à plus de 60 000. En fait, le premier impact, nous avons eu le plaisir d'entendre l'association de jeunes, dont la majeure partie des membres est basée à Dakar, dire qu'ils euh, vont créer les conditions d'un retour au village. Ça veut dire que cette installation redonne espoir aux jeunes du terroir qui peuvent, à côté des femmes, travailler à la création de la richesse et être auprès de leur famille. Ça, c'est un aspect fondamental. vraiment de ce projet Bay Dundé qui articule l'autonomisation des femmes au retour de nos jeunes qui constituent la main-d'œuvre vaillante et qui sont dans les grandes villes à la quête de lendemain meilleur. Ah, nous avons, nous remercions Dieu parce que nous sommes partie prenante d'une dynamique continentale, initiative Kilimanjaro pour l'accès des femmes à la terre. Égypte Soir est dans le bureau continental. Mais après Arusha en 2016, nous avons pu avoir vraiment dans plusieurs villages du Sénégal des espaces comme ça dédiés aux femmes. Et nous ne limitons pas seulement à l'octroi, mais nous accompagnons le groupement de femmes et beaucoup de communes ont formalisé ces, et sécurisé ces périmètres. Maintenant, Nous sommes accompagnés par un expert foncier, Kader Fantagom, que vous connaissez, qui capacite nos membres. Parce que les femmes doivent être euh, alertes et savoir tout ce qui tourne autour du foncier et les enjeux du foncier. Quand nous prenons l'article 3 de notre Constitution, euh, il parle d'égal accès et d'égale répartition des ressources. Mais vous voyez que les, les hommes ont fini d'accaparer les terres. Et la main-d'œuvre. Euh, rurale, elle est à 72% féminine. Nous ne faisons donc que réparer une injustice, mais au niveau de Gipsoir, nous comptons plus de 30 périmètres comme ça et plus de 120 hectares octroyés grâce à cette campagne Kilimanjaro. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés l'Alliance nationale Femmes foncières qui regroupe toutes ces organisations qui militent pour un égal accès des femmes à la terre. Parce que la femme, quand elle la terre, et la mesure de créer de la richesse. Et quand elle la richesse, c'est pour le développement des familles, les terroirs. Donc euh, une campagne et chaque année, nous euh, dans une capitale. La première année 2017, c'était à Addis. L'année dernière, nous étions euh, au Nigeria, à Abuja, où nous avons pu euh, rencontrer les parlementaires. Mais nous pouvons fièrement au Sénégal montrer que grâce à la campagne, nous avons pu faire bénéficier à nos membres de nombreux hectares. Et le partenaire qui est Hilfofur Africa Vassafur Sénégal nous permet de renforcer cette sécurisation. Parce que quand vous mettez en valeur une euh, surface, là c'est un renforcement de la sécurisation. Ce projet. Bon, nous avons le, pro, le, en fait euh, le c'est un programme, programme Beydounde nous l'avons appelé et dans ce programme déjà nous comptons 30 périmètres. Il faut Fuir Africa a décidé d'accompagner dans un premier temps 10 périmètres mais nous avons toujours le fundraising pour euh, couvrir les 20 autres périmètres. Mais notre vœu c'est que les femmes du GIP Soir mais les autres femmes membres des autres réseaux détentrices de terre puissent bénéficier d'un appui et vraiment pratiquer sans grands efforts euh, les activités maraîchères, mais aller à une création de richesse. En 11 régions sur les 14 au Sénégal. Thiès, euh, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons 12 périmètres à Thiès. Le problème à Mewan, je, je le dis chaque fois Omar, nous avons une union forte là-bas. Et cette union, la plus jeune présidente, Matimbaï m'a dit, Julie, quand je venais d'être fraîchement mariée et je venais dans ce village, j'ai trouvé mes sœurs en train de travailler cette terre. Donc c'est une surface de 10 hectares qui appartient à une organisation mixte. Cette organisation mixte a décidé d'octroyer 2 hectares aux femmes. Mais nous, nous jusqu'à présent, et ça fait deux ans, nous ne parvenons pas à faire de sorte que la commission domaniale de la mairie délibère ces deux hectares pour l'union des groupements de Mewat pour que nous puissions commencer à faire des installations pareilles. C'est un problème. Nous avons saisi qui de droit et nous continuons à faire le plaidoyer. Mais quand l'occasion se présente, qu'on puisse dire au niveau de la presse qu'on a ce problème à Mewat. Oui, bon, Chipsoir a annuellement produit 15 Et quand nous les produisons, nous essayons d'intéresser, d'appuyer les collectivités locales sur cet aspect environnemental. Parce que la désertification, pour nous, le meilleur euh, frein, c'est de reboiser. Mais un reboisement qui sera suivi et qui puisse apporter ses fruits. Donc, euh, chaque année, nous produisons et en parfaite collaboration avec les eaux et forêts, nous sommes appuyés par les différentes IREF et nos membres procèdent à des euh, actions de reboisement. Mais parallèlement, nous sommes appuyés par le Fonds mondial pour l'environnement et nous allons démarrer bientôt d'autres actions avec ce Fonds mondial qui entre en droite ligne dans cette lutte contre la désertification. Nous reboisons, nous restaurons certaines surfaces dégradées et nous essayons d'apporter des solutions à l'érosion hydrique. Parce que le dérèglement climatique a fini de nous donner de fortes précipitations qui lessivent nos sols et dans ces endroits, on ne peut plus cultiver. Donc nous essayons de faire des ouvrages creusés qui retiennent l'eau et que pour que le, puisse, le, le tapis herbacé puisse revenir.